waaw dañu tey dañ ñëwoon fii ci Mbacké suñu dëkk waxtaanee sport de manière générale xool nan la ñuy jàppale dëkk bi pour euh, gën a mettre en évidence le sport dajale fi tey aujourd'hui le monde des nawetaan euh, waa ODCAV bi ak euh, basket bi ak handball bi ñëpp daal ñu yëngu ci sport au niveau de Mbacké ñuy waxtaane noonu la ñu mën a jàppale suñu dëkk ba sport bi gën a jëm kanam tey dañu am ñu ngi waxtaane noo loo xam ne moo ëpp solo mooy un esprit d'équipe Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout Mbakwa se retrouve à travers le sport et le club. gars yi dajaloo na ñuy waxtaan zone d'ombre yi amoon yëpp ñu ngi koy jéem a xool nu ñu koy contourner pour vraiment daal gën a jëmale suñu sportu dëkk ci kanam am nañ nag ay stratégie yu ñu bëgg a def ci kanam mais xam naa loolu après nañ ci jëm dinañ ci waxaat quoi. mooy tey équipe bi war na mën a am ay moyens ay moyens de transport war na mën a am ay moyen financier yu tax dina mën a confronter ak yeneen équipe yi nekk Sénégal. sur le plan sportif te parce que xam nañ sport aussi dafa demander ay moyens te loolu dafa am solo trop ci yooyu lañ nekk di waxtaan ni xool nan la ñuy vraiment dama ci insister nu ñuy gën a jàppale tey dëkk bi ba sur le plan sportif mu am li mu amoon avant parce que tey xaw na manque visibilité te yooyu yëpp ay moyens yoo xam ne la ñëpp ci jàpp pour ñu am ko problème bi jiitu ci Mbacké mooy dafa manque visibilité ci le plan sportif te loolu ñu ngi ciy liggéey ay stratégies yu ñuy teg pour Mbacké fi mu war a agsi sur le plan sport national mu àgg fa waaw et bon ñu jéem a club bi aussi jàpp ci pour mu jéem a dem ligue pro dem ligue 2 dem ligue 1 te loolu dafa am benn travail préalable boo xam ne dañ ko war a def derrière sur le recrutement des joueurs des entraîneurs la qualité de vie qualité sport mbàkkee terrain yeeg yëpp quoi ñu état bi jàppale ñu aussi pour ñu am ay terrain yu baax yoo xam ne jeunes nañ ci mën évoluer. état moom li ñuy xaar mooy mu àggale stade bi parce que stade bi commencé nañ ko ba léegi nii àggul te loolu jëmalewul sport dëkk. dëkk ci sport Mbacke kanam jëmalewul jàppalewul jeunesse su Mbacke aussi parce que terrain terrain football bi bu ñu ko defaree si biir mën na am terrain basket mën na am terrain mën na am terrain handball mën na am athlétisme tout ça te ba tey ji nii travaux yi àggagul quoi ñu ngi ñaan état bi aussi à travers le ministère du sport ak euh, l' entreprise qui s'en ñu jàppale ñu ci quoi pour jeunesse bi jeunesse su Mbacke bi mën ci évoluer bu baax.